salum salum bi ñoo mobiliser and ak ñom ñu tënku dóor tuba bi leen kon bu ñuy wax ci walu histoire ak walu jambar kenn jiitu ñu kon salum salum bi lima gëna gën lima bëgg moy ñu gëna xam suñ bop gëna a suñ taxaway euh di am nak fi ci samay jarbat ci Kër Madiabel eh, ci jataay boo xam ne ay xale yu ndaw ñoo ko organisé damay wax toujours ne amuleen leen droit erreur amu leen droit échec ndax xale bu la sa bu la mag tabaxe jàngal la def ci yow li war def ci yow yépp so magge da nga nan ko bàyyi demal nga tok noppalu ma yori keur gi motax mané na mag ñi tok xalé yi doxal mais xalé yi itam buñu ñu sen seen nañu démé sen doole mais nañu démé xalaatu mag ñi yonenti bi amone ay conseil yu bari da na wax ashiru alayya té mom la yalla yoni combat nak xex ba gagner

C'est bi lolou gatch deug la kon gëna a taxaw taxaw bu gëna a ba ngay combat combat bi mo fi combat bi du combat ci ko mbedd manifestation yoyu jaxna na combat wu la combat wu la ba sénégalais yi ñom loolu nag dañ ci am yaakaar ci jub jubal jubbanti lu jafe la nag ndax Sénégal ba mu yàqu depuis 1960 la Sénégal yàqu lu yàqu nag 60 ans ci ginnaaw bu ñu la juróomi at nela la ko ah liggéey bu doy waar la te ñaari ñi ko yàq yëpp demu demu ñu ngi fi. dala déglu di gën di ngay ngay liggéey jëm ci kanam ñu lay fakastal bëgg nga gën a yàqu pour ñu continuer ci yàqu googu moo tax il faut gën a taxuwaat gën a defaraat jataay yi gën a fooglu gën taxaw te politique yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe naa ne moo mooy polo mooy politicien bi dàq politique ci àdduna bi ndax lii mu taxawal ci politique la ko taxawalee politique araamul daan naa ci waxtaan ak Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla xare àjjana daf ma dénkoon les arabisants bu PS bi El Hadji Moustapha bàyyee defoon na ma it conseil di ma déglu loolu leer na Serigne Mbaye Thiam kër ma jibee lay waxee ci kanam caméra yi warna item, itam eh, le maire de Kafri nous ablay Ablaye Wilane merci beaucoup ci kanam caméra yi lay un événement Aman te une manifestation wara am daf may manifestation de warnay am mais dafa un événement l'islam ma ko ko ci parce que Sénégal te bu ngeen manifester ci événement bi defe naa jullit ñëpp ngeen di offensé ñu teg ko ci suuf kon ma yaakaar ne il faut ñu gën a taxaw gën a farlu e te encore bu la nit di attaqué ci yoon wi ku am foo jëm bu ñu la attaqué bul tontu tontu daf lay tardeel yow li ñuy xaar ci yow du ay tontuwante li ñuy xaar ci yow mooy nga liggéey joxe résultat te xam ne ki nga xam ne dafay ne ci rajo yi di wax kooku dafa am temps dafa am jot dafa bëgg di wax pour tardé la nga di ko tontu di tardé te yow li ñuy xaar ci yow du ay tontu li ñuy xaar ci yow ay débat li ñuy xaar ci mooy ay ay yoo xam ne dafay yegg ci population bi nga xam ne ñoo dàq ñëpp jiital jiital Pastef yaakaar yaakaar gu rëy kooku ku ko am ci yow defe naa doo am jur tontu. kon ngeen gën a farlu gën a wan ñi nga xam ne ci ñoom ngeen jëlee réew mi wan leen ne leen ñun amuñu droit échec taluñu itam loolu li ñu tal mooy liggéey te politique du ay saaga politique du wax ju bon débat d'idée ak ak ak vision débat d'idée ak vision xam fi nga jëmee Sénégal ak it booy débat nga débat ci xam-xam di teg ay argument kii saaga amul argument kii saaga amul argument ku am argument say argument ngay génne mais ki amul argument mooy saaga kon civilis na civilisé na rafet na kàddu yu rafet léegi nag li koy dëggal mooy na jëf ji rafet amul amuleen droit échec amu leen droit echec waxuma Sénégal mais Afrique yëpp ñu ngi roy Pastef Afrique yëpp laa wax ñu ngi roy ñu ngi roy Sénégal ngir taxawaayu waa Pastef bu ne équipe la Ousmane Sonko moo ko moo ko jiite mais équipe la benn Ousmane Sonko du dem mais ñi ànd ak moom nekk ci gannaawam yëpp équipe la équipe boobu nag nañu gën a taxaw kenn ku nekk son bi nga nekk. nga gën góor góorgóorlu nga liggéey Afrique yëpp ñu ngi roy Pastef Afrique yëpp bëgg nañu am Pastef boo demee Côte boo demee beneen man damay seetaan seen débat yi dëkk yu bari dañuy ñëw Sénégal ci changement bi am te loolu ay jeunes ñoo ko porté ci jamono ju jafe ñii faatu nañ ñii tëj nañ leen su ko defee bu yàlla defee te encore may wax ne réew mi yàlla moo leen ko jox kenn joxu leen ko. du serigne bu def intervention tax ngeen ken ne deful intervention djel rew mi jox len ko yàlla mo len jox rew mi yàgg naa wax ne qul lillahuma malikal mulk tuti mulka man tasha wa tansiul mulka bi man tasha wa tuisu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kul shay'in qadir yàlla moomu mo djel rew mi jox ko wa Pastef do intervention ben serigne doo intervention benn influent yàlla la neex mu jël réew mi jox leen ko kon da ngeen di xool yàlla ci réew mi te ragal yàlla ci réew mi liggéeyal yàlla ngir réew mi su ngeen ko defee am ndam su ngeen defee leneen wa tansiul mulka mi man tasha yàlla mi mu neexoon ba mu jox la réew mi yàlla lay neexar moo nanga war réew mi kon taxaw ànd ak yéen bu rafet ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñi faatu yàlla nañ xippee jaajëna firdaws ñii ñu tëj kaso noonu la yàgg-yàgg tëj génn kaso gi kenn dëkku ci kuñ ci tëjit da ngay génn yàgg-yàgg génn ñoom ñëpp génn nañ te fi mu neexee la gën a neexee génn yàlla jël réew mi jox leen ko yonent yàlla Yuusuf tëdd na juróom-ñaari at ci kaso gi keroog ba mu génnee la jiite Égypte ba pare joxe résultat joxe résultat kon bu ñu la boo nekkee détenu politique yàlla def yàlla génnee la jël réew mi jox la ko da ngay wan ñi la tëjoon ne li ma doon xeex bañ tëj ma am naa ci solution su ko defee nga joxe résultat yu palpable pour Sénégal jëm ci kanam ñu ngi gërëm yëpp ñu ngi sant ñëpp yal na leen yàlla jàppale di nuyu ñi fi teew yëpp mais ñu xam ne lii du guléet ndax jàmbaar yi lislaam yi yëpp ay saalum saalum la ñu su ko defee ñun moom defe naa ne desuñu gannaaw te mosuñ koy des su ko defee xale yi xam loolu ñu gën a fagaruwaat gën a defar senegaal yàlla def na am nañ am nañ pétrole ay sëñ bi réew mu mu ay xale jiite ay borom xam-xam jiite ko yàlla toj pi pétrole yi kon Sénégal bu ñu góorgóorloo mun nañuy raw Dubai war nañuy raw Abu Dhabi war nañuy mel ni Qatar bu ñu amee loxo yu set laa wax. loxo yu set pétrole nag dafa sensible dafa laaj ñu aar ko taxawaat ndax dëkk yi am pétrole yëpp ñu ngi tàkk kon nit ñu am ful la ñoo koy gérer Sénégal man koy jëriñoo ay patriote ñu bëgg seen réew ñoo koy jiite Sénégal man koy jariñoo boo ñu ko deful jàmbur ñëw jariñoo ko te duñ ci man dara te xale yi dem jàggi uti xam-xam c'est important ku la ëpp xam-xam ci àdduna yu ma la mën dem leen jàngi nag du ma ko wax waa Kër Madiabel xale yëpp ay cadre lañ dëkk yi moom fii ay ñëpp ay cadre lañ léeg-léeg moo dem Arabie Saoudite man wala ma dem Dubai foo jàngee man leen Sénégal man leen Sénégal fan man leen Kër Madiabel di laa leen di wax Kër Madiabel ñu naan ma fan ma Kër Madiabel kon loolu du ñu ko jàngal waa Saalum Saalum yi rawatina Kër Madiabel ñu ngi nuy sunu mag El Hadji Moustapha ñu ngi nuyu itam sunu doomu nu yaay Serigne Mbaye Thiam kër ma jëwe ñàkkul ay cadre boo ne Moustapha adduna bi yëpp xam nañ ko kër ma jëwel am déet voilà c'est ça le problème ndax nit ku nekk nag war nay am koo xam ne eh, léeg-léeg léeg-léeg da naan da naan man nga man nga ko man nga ko man nga ko am nañ am nañ kilifa yu yàgg ci état depuis Senghor desul gannaaw kon ñooñu dañ leen di delloo njukkal wan leen ne leen dem leen ngeen toog seen jaan wàcce na léegi seeni doom ñoo yor réew mi fi ngeen yemoon fa la ñuy tàmbalee mais développé Sénégal loolu moo jaadu Babacar Ba Kaolack amoon na ay cadre de ci état Senghor jëm ci état Abdou Diouf. Babacar Ba ku ne xam na ko senegal am déet wa jooju Njaay Ibrahima Seydou Ndaw ponkal yëpp ay salum salum lañ loolu il faut ñu xamal ko suñu doom wan leen ne ñi porté combat bi pour senegal toll fii seeni baay ak seeni maam la woon kon yéen sët yi bu leen des gannaaw xool leen fi mag ñi yemoon ngeen commencé ci gë mujj gën a jëm ca kaw waaye li maam fi maam yemoon sët ñëw tas ko gàcce la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu